mbokk yi maa ngi nuyu ñi fi teew ñépp di jiital ci nuyo bi le ministre Abdou Ndéné Sall waroon na fi teew xam naa ni ñàkkul dafa am empêchement de dernière minute madame la présidente du conseil départemental madame Seynabou Gaye woo na ma ni ma dafay dem Mbour ànd ak Mimi Touré mais lu mu guddi guddi dina ñëw monsieur le maire de Pire Serigne Mboup yónnee na délégation bu ko jiitu nee na mu ngi ñëw ak si leen tàccu leen ko bu baax a baax. monsieur di nuyu Serigne Daaru Serigne Diouf mi fi teewal waa Daaru juuf yëpp teewal fi kilifa diine yi nekk fii ah, di nuyu waa Njoobeen sëriñ bi woo naa nee na bu sañoon mooy ñëw waaye yónni na waa këram yëpp njabootam yëpp ñu ngi toog fii. di nuyu monsieur Abdoulaye Tall di sama papa di responsable APR à Mboro waaw di nuyu ñi fi toog ñëpp samay papa samay ndijaay ñi fi toog ñëpp parce que wane nañ ni tey seen doom moo xewle ñu jiital ma indi wax dëgg yàlla ma kontaan si torop di nuyu nag di sant di gërëm les 68 villages juróom benn fukki village village yi yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bu Daaru Xuddoos ndax ku lim fàtte bëgguma lim fàtte kenn mu ne ñun de limuñu ma waaye na leen leer ni yéen ñëpp maa leen di gërëm di leen sant di leen sargal bu baax a baax a baax nag di leen wax ni xëy na jot bi duñu may ñu toog di wax dëkk bu nekk li fa am waaye ñëw nañ fa càmbar nañ dëkk bi def nañ ko ci càmbar nañ jafe-jafe ya fa nekk def nañ ko ci rapport dinañ ko jox jaañ si ak ñoom tonto sëriñ kilifa yi fi ñëw ñu eggale ko président de la république jafe-jafe yi nag dama ko tënk ndax gox bi li fi gën di jafe-jafe problème mu ndox la problème mu courant la problème yoon yu nit yi jàll la problème mu baykat yi ak usines yi fi nekk ñu leen di ñaan nag ndax problème boobu nag problème bu ñu ñor la yéen kilifa yi ngeen dimbali ñu ci dox ci ay tànk jéego ba jàmm am parce que ñun ñoo dëkk kon jàmm rek a xaj suñu diggante ñu leen di ñaan ngeen dox ci liñ leen fi wax nii ci problème ngeen dox ci tànk jéego yi ngeen man ba loolu problème yi saafarawu jigéen ñi ak financement yi fàttewuma leen loolu yaakaar naa ni jaañ si waxtaanoon nañ ci te ñu ngi koy dox bu sottee rek bëgguñu taxaw di dige bu sottee di ngeen ci xam dara tey nag li ñu fi dajale réseau bu ñu teg la pour jàppale Macky sàll ndax nag ku am doole ci dooley jàmbur nga wéeru ba am doole kon bu ñu yaakaaree Macky sàll war nañ koo mun a jàppale ndax bu amee doole ñu am doole te ñun day am nañ ambition li fi di problème ñu lim ko ñu dox ci wax ci ba mu saafaraw te loolu nag ci Macky sàll lañ ko yaakaaree ak kilifa yi nga xam ne moom lañu booleel. te xam ni buñ ko jotee dinañ ko ko yeggale moo tax ñu teg réseau bi réseau bi fii lañ defee lancement bi waaye bëgg nañoo dem ci gox yépp ndax nag réseau bi c'est d'envergure nationale dañuy def lancement bi fii tey rek mais yamul fii yamul daaru kese réseau bi nag li ko tax a jóg jàppale Macky Sall boolewaat njabootu APR boolewaat ñi nga xam ni bëgg nañoo liggéeyale Macky Sall te xamuñu fu ñuy jaar fu fi waay nekk rek tàllal nañ la loxo. pour jàppale président Macky sàll ndax yaakaar nañ ni buñ ko jàppalee suñu aajo faju ndax nag président bu am vision boobu xam ni moo indi plan Sénégal émergent te ñun fii ay baykat lañ te wax dëgg yàlla ba mu ñëwee ba léegi bay wi gis nañ li ci yokk secteur yëpp gis nañ li ci yokk dund bi wàññeeku na ba mu ñëwee ba léegi daal wax dëgg yàlla lu mu fi fekkoon yokkaat na ko kon mu ñu am rafet njortu lool ni suñ ko jàppalee li ñu bëgg dinañ ko mën a am réseau bi looloo ko tax a jug ñaaxaat nit ñi pour falaat président Macky Sall waaye li gën a urgent tamit muy référendum bii di ñëw ñu voté massivement wii pour wan ko ne ñoo ci gannaawam ñoo ngi koy jàppale parce que référendum bi point yu suqali démocratie rek a ci nekk loolu ma ne woon naa leen ko yegge di sant nag. comme ni ma ko waxee woon ñi nga xam ni ñoo jàpp ci liggéey bi ba réseau bi mun a taxaw tey lim naa leen sànq jarul daanaka ma ciy jaaraat parce que guddi na te kilifa yi dañoo war a wax di sant samay mbokk waaye nag di sant autorité yi ci gannaaw xam ni ñoom it bés bi taxaw nañ ci seen kéemtalaay kàttan te du taxaw ci bés bi kese mais jël nañ ñu uuf ñu wan yoon wi di ñu teetee damay bañ a nekk di limaat rek di guddal waaye am na ñi nga xam ne mënuma leen bañ a lim mu ku mel ni tontoo sëriñ parce que man dama bokk ci njabootam doon jarbaatam doon léppam wax dëgg yàlla naw ko lool nag gis ko mu yaatu lool ku ko wax mu déglu la et tout jox ñu cër ñu delloo ko cër boobu waaye nag mënuma bañ a sant ki nga xam ni tey man mooy sama kilifa muy Diagne Sy Mamadou Diagne Sy Mbengue dañoo dem ci waawoon mu dalal ni ma seeni damay ñëw seet si la nga woo say mbokk ñu xool fa lu fi di problème ñu xool nuñ leen ciy jàppale te loolu de bu ma ko waxee man dinaa ko gëm ndax dama fekk woo ma teg ma ci watam jox ma lu ma jàpp loolu man mënu ma ko fàtte kon kooku tey su ma nee woo say mbokk ma ñëw fa càmbar seeni problème problème bi def naa ko ci rapport jox naa ko ko léegi ma ñëw fa càmbar seeni problème jàppale la man de su ma ko waxee dinaa ko gëm parce que musuma wax lu mu deful kon man munuma ko bañ a sant mënuma ko gën a gërëm di ko wax ni nag dañ koy tiitaroo ndax moom li Macky Sall doon wax naan ubbi leen téléphone yi wax ak nit ñi xam nga moom taxu koo jug ndax ku ko woo jot ko xale bu fi nekk yaakaar Macky Sall gisoo Macky Sall moom moo doon sa Macky te loolu suñ taxawee fii tey waxuñu ko gorewul ñu koy sant bu baax di ko gërëm waaye nag bu ma ko gërëmee ba pare dinaa gërëm samay mbokk ndax mënuma toog di lim ñépp mais samay mbokk yépp na leen leer ni sant naa leen gërëm naa leen parce que gis naa seen taxawaay ci bës bi di sant tamit sama borom kër ndaxte nag ku ñeme dañ laa dee ndax bu ma sañee woote lu mel nii tiituma ragaluma xalaatuma ay fu muy réussir fu ma koy jëlee moom c'est grâce à moom te wax dëgg yàlla mënoon na ma tere bu ne ma woon politique bi bàyyi ko damay toog ndax mooy sama kilifa mais terewu te lu ma nekk moo ngi ci jàpp kon loolu tamit su ma taxawee si mbooloo bi mënuma ko bañ a wax waaye tamit di gërëm ñi nga xam ne ñoo jàpp si liggéey bi yëpp lim naa leen sànq ci sama discours en français kilifa yi dañoo war a wax kon duma guddal waaye tamit di dellu di gërëm population bi teew fii yëpp muy 68 village yi di ñu jógee ci département bi mbooloo mi fi teew yépp maa ngi leen di gërëm aw ma seen fay ndax mënoon naa su wootee ñu ne amuñu jotu yu ay xale yu ndaw ñuy ñëw ñu ñuy teg fii magu jëmm duñu lii mais dañu am yaakaar ci man koo ci dem wax ak moom ni ko ah ñun kat xool li fi jafe-jafe ñu defar joxante loxo jàppale mag Macky Sall pour mu mun ñoo jàppale jafe-jafe yooyu saafaraw moo ñu tax a jóg ñu nañu seeni boo jugee ñu jóg kon bu ma taxawee fii tamit mënuma leen ñàkk a gërëm ñi fi teew ñëpp aw ma seen fay aw ma wax dëgg yàlla lu ma leen mën a wax xanaa bàyyi leen ak yàlla di leen ñaanal di gërëm tamit sama ay mbokk jëkkër ndax ñoom it ba sama jëkkër jógee dañoo jóg ñoom ñoo fi jiitu tey muy waa Bégué ngeen baal ma bëgguma woon lim mais mënuma ko bañ wax parce que tey ñoom ñoo fi jiitu gis naa taxawaay bi ñi fi teew ñëpp daal maa ngi sant di gërëm di sant ñëpp ku ma fàtte nga baal ma wax dëgg yàlla moo tax bëgguma lim sant naa leen gërëm naa leen yéen ñëpp wasalaam